bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp kàddu yi njiitu réew mi Macky Sall yëkkati démb yéene kaay yu bari moom la ñu xëy yeggeenu tey vox populi ne njiitu réew mi Macky Sall jàpp na ni amul lenn lu mu def niw njombe mbaa ñum te ju war a tax mu baalu ak askan wi rawatina ak li fi mu jeexew muy dàqum élection présidentielle geeg ay wi mu jur journal bi ne ca BBC Afrique la sekoon waxtaan ak sunu naataango ya waaye Macky Sall lam fa wax mooy lépp lu ma def ci yoon laa ko teg te itam daa méngoo constitution bi naka la yëkkatee yooya kàddu génnee constitution bi ci poosam ne lii duma tàqali jëfandikook moom fu ma jëm mi ngeek man dend lool ak sama xol ndax foofa laa teg Sénégal googa njiitu mi Macky Sall ne mën naa def élection yu leer nañ yu tegu ci yoon bu nu ko falee dimanche bii ñu dëgmal maanaam ñaar fukki fan ak ñeent weeru mars danañu am chance su jokkalante lengay bu nu ko deful nag ñaari fan weeru avril man damay dem sama yoon benn fan fas yéene ma koo defaat ci bopp réew mi réew mi nag tribune ne Macky Sall jàpp ne a quotidien jàpp ca ne makee ngay dédduwaane wu makee ngay seetal boppam ci dàqum élection présidentielle beeg coow li mu jur ak fitna wa élection bi nu jëm nag laas ne maki ñaanu ca fitna ndax ma ngay ñaan ñu ci dal maki mooma réew mi quotidien ne fukki fan ak ñaar ci bopp réew mi a wuutu nu ko falu dimanche bii di ñëw du jokkalanteeg moom léngey l'observateur ne waaye Macky la ko naqadi ba mu wax ko mooy jugement de valeur yi def ca moom moom maanaam la nit ñay xalaat ca moom lu safaanu te di ko wax fu nu toll fii nu toll nag tey naan ñi bokk na noom bokk nu Macky Sall ca Les Échos ma nga naan buñ ma déglu woon am ndax buñ ma toppoon ca la ma naroon muy Bassirou Diomaye Faye ak Amadou Ba Amadou Ba moom ak Sidiki Kaba ca la Réveil Alpha Thiam coordonnateur régional coalition Diomaye président ca Tambacounda nee na ñoom ñaar ñépp lay boole duma Alpha di joxoñ ca boobaleb yéene kaay ñàkk nguurug APR seetaan fukki at ak ñaar yu nu weesu Alpha Thiam ne Tamba moom mokk na ngir jomaay fay ñaar fukki fan ak ñeent weeru mars dana leer ndax ñépp coppite lan bëgg Ousmane Sonko ca boobaleb yéenekaay naan waxuma la soppi waaye raxas ba mu set ñi fi newoon lan war a def Sonko naan te nu war a moytu nag mooy fal njiitu réewu tappalekat ci juróomi at yi nu dëkkmal booba jamono ca l'indépendant idi mi mbooloo mu rëy teeru Louga ma ngay jaay a defaw say tënk ko ci ne patronat bi dañ koo war a dooleel Walf Quotidien di laaj ana luy palaasu industrie ci programme candidat yi xëccoo nguur gi yéenekaay bi ne waaye ku ne ak say pexe candidat wu PUR Aliou Mamadou Dia yéenekaay bi ne ma nga tënku ci emploi di xëy agriculture di mbay mi ak tourisme moom Aliou Mamadou Dia it Vox Populi gis ne ma ngay def kéemtalaay kàttanam ngir pale bee ñaar fukki fan ak weeru mars mu doon ki fay dugg Vox na ca ba set wecc le quotidien dëggal ko ne du libéraux yooyu sax ndax Rose Wardini it fekki ji na Amadou Ba Cheikh Tidiane Dièye it yéene kaay bi ne rocc na candidature am ne juróom-ñaar fukk ñett ci ay mouvement ki parti politique fekk si nañ ko ñu fekkati Khalifa Sall ca point actu mu ànd ak Anta Babacar Ngom ñuy dal ci kaw Bassirou Diomaye Faye bokk na ca lañu koy ŋàññe koppar gu bees gi ne dana ko sàkkal Sénégal bu nu ko defee njiitu réew Anta Babacar Ngom ne coppite googa daf ma tiital Bassirou Diomaye Faye moom lu ne mën nañ ko ko waxal waaye compétence moom amu ko xalifa sall ne leer daal mooy moom boo ko néewalee doole koom-koom ba mooy mujjee nërmeelu waaye ndongo sàmba si la économiste daa mel ma nga naan ca booba lépp journal des ci mooy soobu ci sous développement ba faaw Aly Ngouille Ndiaye ca la naan man ca la ma nar a sukkandiku ba suqali Sénégal jubbanti ko mooy rigueur ak conviction Bassirou Diomaye Faye ca Vox Populi naan ñi fi ne woon daal buñ mënoon dara Sénégal du nekk tey ñaar fukk ak ñeenteelu a gox bam cosaanoo mu di njaga ñaaw njaay njaay rawatina di village bu Basiru Jomaay Fay a nga xam ne way ba journal bi ne kon doomu chef de village bi tey moo bëgg a doon chef d'état maanaam njiitu réew mi ay seede jib ca Basiru Jomaay Fay jóge ca kenn ca ñam bokkaloon lal yéenekaay bi ne waaye wax njabootu Basiru Jomaay Fay tey du lu yomb ndax communication bu Pastef ña ko ngànk am na lu nu joxe ni ndigal ci njabootu seen candidat booba Karim Wade mi ne woon candidat wu Parti démocratique sénégalais a tànn jàppale ko ci élection présidentielle bi nu dëgmal élection booba ña cay candidat enquête gis na la gën a ub seen bopp bokk na ci xëyum ndaw ñi yéenekaay bi ne programme moo programme ña a a semi élective yi maanaam fépp fu nuy fale ndaw ña am fa fanweer ci téeméer boo jël jomaay moom rupture générale intergénérationnel la woote maanaam fépp foo xam ne ay ndaw fa war a toog te ay mag ne fa tey loola dakk boole ca it at mu jot ne ay junni junni xëy danul fexe ndaw ñi am ko Bambey ga mu ne woon nag moom jomaay ne tontu naña koy ngàññ naan parewul ngir doon njiitu réew jomaay ne ñoom ñëpp maa leen gën a pare ngir toog ci fëdda président bi doxal réew mi candidat yi wër réew mi nag l'observateur ne am na gox yoo xam ne ña fay doog a teg tànk maanaam campagne ca mooy booba jamono naan siin moom titre foncier wu Macky lay wéy di doon docteur Cheikh Kanté ak Thérèse Faye Diouf taxawaay woon fa ama ko waral taxawaay wi Abdoul Mbaye nar a am ci élection présidentielle bi nag l'info ne mooy jàpp ci boppam njiital acte ne abstention la woote waaye bu nu yeggee deuxième tour dana fexe ba continuité du am maanaam ñi fi ne woon moom du nu jàll ñuy yëngu ci wàllu caada yéene bi ne booba jamono danoo mer ba futt mere sénégalais teer ca daala barça wala barsàq gi journal bi ne ma ngay wéy gaal yooya ndar ak baabu seen consul bu sénégal ca daala ne ñene woon ca yooya gaal yépp ay sénégalais lañu ñooña yegg si fa nag nee na am na ca genn gone goo xam ne amul sax benn at gu ànd ak way juróom mu jigéen ay góor ak i jigéen ñépp bëggoon a gis Sadio Mané bëgg mu defal leen autographe mbaa ñu photo woog moom stade ne loolaa xew amien ga mu gis ne Sadio ab buur la fa mujjee doon booy ji ma doon rëcc ca kaso yooñ ko daan tëj lañuy jeexale Les ko ne ragal mu rëccati moo waral ñu jëlee ko Jurbel yóbbu ko Rëbës yéenekaay bi ne administration pénitentiaire moo biral boobu lépp càkkutéef ca la ñuy jeexale ñun tey ñaanal leen kenn ak jàmm dig dajee ëllëg incha allah